mi bokk ci RENS DKR ñun nuyu ko fii waxtaan bi mujj satisfaire na la wala. fii. seen waxtaan bi fu mujj. waaw satisfaire na ma wax wax nañu ci waxu nit ñi nañu ñàkku man bokk naa tey tey tey laa ñàkku fii ci stade bi li may def tamit may lancer appel Pikinois yi maa ngi lancer appel Pikinois yi tamit ñëpp da ñëw li président santaane ñu def ko mooy ñëpp ñàkku ñëw ndax ñu ubbil ñu suñu stade parce que metti na parce que maa ngi dégg si waxtaan bi sax ñu naan. diw promoteur la diw promoteur la licence promoteur bi ci turu Jimbo la nekk mais man ci waa rent Dakar muy sama ñaq sama alal mu ngi ci biir kon man si laa bokk du Jimbo tey benn du ñëw doo ñëw di dagg licence yi bind rent Dakar da ngay jël si turu nit ki muy Jimbo tey sama tur la waroon nekk man maa ko jël jébbal ko ci turu Jimbo pour mu leer si tey ñu nekk ci axlu làmb leer ci président CNG bi tey wax ni tey Euh, am na ñuy wax te duñu promoteur man ci rent DKR te su ma ñàkk moo nekk ci xaalis bi sama ñàkk mu ngi ci kon ci laa bokk. loolu loolu Alain confirmé na ma ko. voilà ñun ñun ñett lañu pour ñu am licence yi il faut ñu def ko ci turu nit. ñu bëgg voilà léegi nag maa ngi koy leeral maa ngi koy leeral ni man mii tey man maa man maa ñëw jël sama sama man maa jël ne leen def leen ko ci turu Jimbo mhm. licence mun naa génnee sama poche dem dagg ko. comme ñun ay famille lañu ay mag rakk lañu man Alain Djimbo man mii maa leen dugal ci mbir mii maa leen dugal ci lii man maa tax ñu dugal ci seen alal léegi nag lu ñuy wax mooy tey ñu jàppale ñu dimbali ñu ñun tamit ñu am lu ñu teg ci loxo mbari yi waaw ñun lépp lu ñu financé ci làmb ji mbër yi financé nañ ko parce que ñun dañoo metti le parce que ci jour bi la heure bii tey ñun ñëpp ñu ngi fi woon xam nga ma ci xam nga ci si gërëm suma grand xalifa ñi taxawoon yëpp taxawuñu si parce que tamit metti na ñu jàppale comprendre nga ubbil ñu suñu làmb ji ñu libéré booy yi waaw loolu la ma si jaale nag suma ndijaay daf si génn dafa génn àdduna démb muy Samba Sarr maa ngi koy jaale di ko jaale laaye see cosaan di ko jaale Pikine parce que Samba Sarr Samba Saaru àdduna la si dëj laa nekk nii mais lii mënul ñàkk tey ma ñëw fii parce que suma ndijaay la mook suma yaay bokk ndey ak baay xam nga muy accident bi amoon fii oxygène maa ngi koy jaale population Pikine yëpp waaw fu ne nii comme vaccination nañu am est-ce que pare ngeen ku ci nekk mbër bu ci nekk nga wax ak moom changer ay supporters ñu daal di vacciné wu ngir làmb ji mën a ubbiwaat non man mënuma mbër yi euh, yi ñoo koy wax ak euh, ménage yi mais ñun ñi nga xamante ne tey ñun ñoo bokk rent DKR dinaa ko wax Jimbo wax ko ale man man position boobu la tool ñun ñi tey muy staff rent DKR ku si nekk dina ñàkkaw njëkk njëkkay naa ko ci man ñàkku naa fii ci arène bi te képp ku ma gis dinaa ne dinaa ñëw fexe noo ñàkkoo comme loolu moo loolu loolu bu ñu ko defee làmb ji dina ubbi bu soobee yàlla bëgg nañ ko def quoi waaw mais nag li li gën a am solo mooy tey mu ñu jox ñu ndàmpaay nañ ñu nañ ñu jox ndàmpaay parce que lii metti na trop si ñun waaw.